Ousmane sonk mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi li nekk di ante seen passé yi nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a reposer en yàlla leen yàlla xare àjjana Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on verra bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dictateur justice Sénégal ça on le kenn du la tëj ba ba ba dangay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne duñ la tëj on verra.